bismillahi rahmaani rahim aousu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa ansilaara xarxa wa rasaaya wa jinna wa seytaane wa balaay maa bala imaha amradi wa biiri daatan xaadula ahradi yasir lahum bihi la sit ansara fa kullu maa yasartoo tayasara mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi topp seen seen Jazboul Mouride ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar ci réew mi ak ci bitim réew di jiite ci nuyoo bi ak siyaar nag xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal liggéeyaa ko nam ba jàmbaaram ja sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbend di ñaan suñ borom yàggal ko loolu téwéral ko di siyaar mboolem jabatuk sëriñ Touba gépp mboolem jabatuk maam si Ibrahima Fall gépp mboolem seex sëriñ Touba yëpp waaye mboolem seex maam si Ibrahima Fall yëpp mbokki nag di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëriñ euh, seex mbay yaaram mi nga xam ne fi bàyyi ko euh, di doomu sëriñ yaaram mbay sëriñ yaaram mbay ñëpp min ko ci keppaaru maam si Ibrahima Fall lu bëree bëri lu ñu xam ci maam si Ibrahima Fall si sëñ Yaaram Mbay lañ ko jëlee sëñ Cheikh Mbay Yaaram nag toogoon jotaayu sëriñ Yaaram Mbay waaye it euh, suñ borom jël ko euh, di ñaan baax suñ borom yokk ay xéwalam ak i leeram euh, ca barsàq suñ borom yokk ay leeram tam ñu ci barkeem wax dëgg yàlla liggéey na fi liggéey bu am solo ndax dala daan wax sama sama nijaay nee na ma maam si Ibrahima Fall nee na ko te loolu tamit lu jafe la muy diggante ak maam si Ibrahima Fall kenn rek moo fi daan dox kon. am na sax xisa bu muy nettal ne bis Cheikh Modou Fatma bés na maam Cheikh Ibrahima Fall ba waxtu guddi ndax Cheikh Modou ma ak Modou ma bokkuñu Modou Fatma mooy waajuru Cheikh Modou ma da ko tuddee maam Cheikh Ibrahima nee na mu ne ko Cheikh mu ne ko Fall mu ne nëkk ci loxoom ne ko Cheikh mu ne ko Fall mu ko kii kan la mu ne ko man la Cheikh mu ne ko Cheikh mu ne ko Cheikh Modou mu ne ko ah doom yaa ngi bés yeelu yàgg jamono yeel yi kat ku mës a ñëw jamono ànd na ak yow ba sa liggéey mat. sëñ Bàmba nag dañoo àndaat waaye àndoon nañ waaye nee na waxul ñaata ñaata yoon kon sëñ Cheikh Mbaye Yaaram ñu ngi koy jaale mbooleem Baye Fall mbooleem taalibe waaye di ko jaale njabootam gi ñëpp rek di ko jaale mbooleem euh, waa daayira bi daayira sëñ Cheikh Mbaye Yaaram di ko siyaar ñëpp tamit mbooleem Baye Fall yëpp xam naa ne tey jii sax mooy nekk ñaan gi su ko defee mbokk taalib yëpp ñu ñu ñu ñaanal ko bu baax a baax a baax liggéey na fi liggéey ba am solo ci yoonu kër maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk yi nag tey seen émission Zikroullah ñëwaat ak yéen nag tey ci beneen xar kanam bu bees tey ñoo ngi fii ci amokaat fii ci kër Serigne Modou Aminta Fall fii ci ñaari Baye Fall fii ci waa booloo baax euh, tey nag ma ñëw fii nag euh, ci kër Serigne Modou Aminta dalal kenn ci njabootuk Serigne Modou Aminta euh, muy Serigne Tamsir Njing Serigne Tamsir Njing nag jóge fii ba Tiwaawoon nekk fa tamit di fa yëngu ci turu yàlla di fa def lu am solo ànd ak mbokki taalibe yi yëpp tey nag ñu ñëw fii nag ci kër gi ci këram fa yéene waxtaan ak moom nag ci turu yàlla wi waaye ci li muy dund ci turu yàlla wi ndax euh, dañuy wax naan dàmbaar amul ko waaye kon dimbali moo am. Mm-hmm. kon moom dañ koo dimbali ci turu yàlla mu di ko yëngu foofu ci dëkk booba waaye xam ngeen ne tamit foofa euh, tamit ñoom tamit ñu fay def lu am solo ci boole goo xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, amoon na ko ci digganteem ak ñi ñoo ñoo ñu bokk lislaam te tey jii ñoom maam Serigne teg leen fa tey ñu fay def liggéey ba am solo sëñ Tamsir laa dalal tey mbokk taalibe yi ñuy seetaan xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk yi ñuy seetaan euh, su ko defee ñu di dugg ci waxtaan nag fa seeni waxtaane tur yàlla wi ak yëg-yëg bi nga xam ne ñi ngi koy am ci tur yàlla wi ak jamono bu nekk ndaw ñi nit ñi tàbbee ci tur yàlla wi bàyyi bëgg goo xamante ni tamit am nañ ko ci sëñ Tamsir ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy su ko defee ñu tàmbali waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah barke borom tuba barke maam cheikh ibrahima fall barke mm-hmm. cheikh mamadou fall fallil fall mm-hmm. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara mm-hmm. eh, di jiital ci nuyu bi eh, cheikh muntaha bashir mbàkke sun borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér day teg sëriñ am di moustapha fall moom suñ mudu mbenda ñoo ngi koy ziara bu baax di ñaan sun borom mu yàggal ko fa di ñaanal sëriñ Fallilou Fall di ko ziar ak mu Moussa Fall ak mboolem njabootu Cheikh Modou Fallilou Fall gi mm-hmm. ah di la ziar yow sëñ Ablaye di la nuyu bu baax di la jaajëfal ci taxawaay bi di nuyu mbokki taalibe yi mm-hmm. nekk ci suñu ginnaaw ñu ànd jóge kër baaba ñoo mm-hmm. baax di leen ziar di leen jaajëfal di nuyu jëwriñ ji nunu boole ñu fekk ko ci biir daara ji muy sëñ Cheikh sëñ Cheikh moom ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko jaajëfal ci yaatal bi jërëjëf sëñ Tamsir ci nuyoo bu jotale bu am solo boobu euh, macha allah euh, dañoo bokk lépp bokk pas-pas bokk lépp rek euh, nga nekkal ñu fee ñu nekkal la fii tey nag ñu fas yéene waxtaane yow ci li ñuy dund ci maam Cheikh Ibra ak mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan mu mel ne émission Zikrullah mbokk taalibe bi bëgg nañ ko lool te dañ koy tepp dañ koy topp ci jamono bu nekk mbokk yi topp ci TikTok bi tamit ñu ngi leen di nuy baax di leen ziara sëñ Tamsir mm. xam naa ne tey yow lañ dalal tey ci émission Zikrullah xam naa nag dañuy wax naan Euh, saxaar bu jëbee gaar faaw mu korne lan nga ñuy tàmbalee turu yàlla yi su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi incha allahu rabbi laa ilaaha illallah faal faal laa ilaaha ilaaha ilaaha laa ilaaha illallah faal faal ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah Ibrahima Faal maam Seex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 fa la ilaha illallah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 daaj bi dégg nga ko lool dégg nga lool daaj bi eh, waaye dinañ ñëw ci daaj bi ak li waral daaj bi eh, waaye bi ñuy tàmbali rek ginnaaw boo nuyoo ñi ñuy seetaan eh, ci turu yàlla wu neex yi nga leen nuyoo ñu bëgg laaj rek sëñ Tamsir ban at la jàpp ne moom la door lii di turu yàlla wi kañ la ko tàmbali yëkkati. Ah, mhm. turu yàlla wi nag. Mhm. fii ñu toog moom mënuñu wax. ban at lañ ko yëkkati ndax wax dëgg yàlla dañ cee dañ cee xàmme ko rek mm-hmm. nekk ci mm-hmm. dañ cee juddu mm-hmm. fekk fi fekk suñuy wéyjur ci yoon wi ñuy doxal ñu fekk fi ay mag yi taalibe dina xam ne ko wax dëgg yàlla ñu sóobu ñu xëcc ñu dugal ñu ci seen biir mel ni sax ñu ñu jiital euh, loolu du ñàkk ñu tudd ci ku mel ni sëriñ Massamba Diouf ñaari Massamba yi. sëriñ Massamba Kër Baaba Alima ku mel sëñ ma Massamba Diouf ak sëriñ Massamba Cissé. Mhm. ñoo ngi leen di siyaare lool. Euh, daayira bee du nekk ci dëkk ba. Mhm. di Kër Baaba Alima quartier bu nekk ci Tivaouane. Mhm. wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko jiite. ak ku ci mel ni ñaari sëñ Cheikh Gaye yi. muy sëñ Cheikh Gaye Italie. ñoo ngi koy siyaare bu baax. ak sëñ Cheikh Gaye euh, mu soxna Kumba Gaye ñoo ngi koy siyaare bu baax di sëñ Cheikh Gaye mu daw. ñoo ngi leen di jaare bu baax wax dëgg yàlla daayira boobu daal buñ buñ ci ci lan xàmmiku mhm. ñu xëccunu ci mhm. ñu nekk ci turu yàlla wi ànd ak ñoom doon ay tutànk tànk mhm. ah di soox nag ba yàlla dogal mu indi ñu nu nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ngi ci sant yàlla bu baax nag loolu ban jamono nga ko jàpp jamono bi ngay door euh, ñu di tàmbali turu yàlla wi xam naa ne bu fekkee jàppoo jamono bi oh. jamono yooyu ci bu ma ko mënoon wax boobu boobu ñaata at lay doon ci yow waaw maanaam daal xam naa jamono yi ay mille neuf cent quatre-vingt-dix yooyu daal. quatre-vingt-dix. booba nga xam ni maanaam bu ñuy xool suñuy at ci fukki at lay toll. Mhm. ñoo ngi fàttali ko ci jamono yooyu. bi mhm. jiite turu yàlla di ko ànd ak ñi ñuy ñuy wax fii. Mhm. dëgg yàlla boobu ba léegi nag bàyyiwuñu ci wenn dox nag ba ay jëmmi jamono. wax dëgg yàlla mag ya nga xamante si ñoom lañ fa ñoom lañ fa xamoon ñu tudd yàlla. ku ci mel Baye fallu wad Baye fallu wad ku ci mel ni Abdoulaye Ndiaye Sikurla Abdoulaye Ndiaye Sikurla mom tiawon googu la dekk ndeysaan ci ko la cosaanoo daa mujj tuubaa nag hmm. waye tiawon ci cosaanoo ñoo ngi fàttali ko bax ay jamono nan top ci ginnaawam hmm. bu tuddé yalla ñu top ci ginaaw bok ci ñi tontu hmm, ndeysaan <laughs> <laughs> kon kon kon kon kon sin tamsir yow yag nga tudd yalla dafa melni kon da nga da nga ñew jamono rek gis lolu diko def dafa mel ne kon ci yaw la ne. loolu euh, da nga jékki rek wax ko. waaye euh, ginnaaw boo jékki-jékki rek tudd yàlla. dafa am ñoo gisoon ci jamono boobu ñu daan tudd yàlla waaw jamono boobu am na ñu ma gisoon wax dëgg yàlla ñu ñu attiré ma lool nag. Mm-hmm. waaw mu ci muy ku ci mel ni euh, sëñ Fallou Wade. sëñ Fallou Wade Kër Bakar ñoo ngi koy ziare bu baax. di mm-hmm. ziare waa Kër Bakar gi yëpp. Mm-hmm. ak waa Wade. koñam. wax dëgg yàlla jamono yi ni nga xàmmee ko jamono yooyu gis nañ ko mu neex na lool doon ab mm-hmm. Baay Faal boo xam ni. Mm-hmm. dëgg yàlla turu yàlla am wet googu yépp nag. Mm-hmm. mu di fa tudd yàlla. mujj nag bu mu xamee cofeel bi ñu am ci moom. mu xëcc na ci boppam nag. waaw buy dem ci ay barab yoo xam ni soriwul foofu ñu nekk. mu di fa ànd ak ñoom. léeg-léeg sax mu di jiital. ba fu nii léegi sax bu nu fekkee ci turu yàlla bi mhm. léegi léegi dañuy gestu rek gis ko maanaam mu bokk ci mbooloo mu nekk ci mbooloo waaw <laughs> xam nga loolu day neex koo xam ne dafa nekkoon sa ginnaaw mhm. nga dem ba mujj gi eh, nga di ko gis muy tudd yàlla mu leer na ne la taxoon mu topp la moo ne ci moom tey waaye jamono boobu eh, dafa amoon ay daaj yoo daan roy ci yoo daan ci moom <coughs> wala da nga ko daan topp noonu rek wala dafa am daaj yoo xam ne da nga koy jëloon ci moom di ko di ko sikar waaw moom day am na daaj bu siiw boo xam ni. Mhm. ñoo ngi koy wax Sam Ngom. Sam Ngom waaw maanaam moom nag daa bokkoon ci ñi nga xam ne daa daa toppoon sunu maam Baara Mbuub. Mhm. foofee la jëlee saam bi. Mhm. foofee la jële daaj boobee. wax dëgg yàlla di ko sikar ñu nit bi nu bi nu xàmm koo daaj boobu rek moom lañ xamoon. moom lañ amoon it nag. di ko sikar. waaw teewul nag léegi léegi ñu dégg fenn xaw a kii jamonoog yooyu. waaye teewul moom loolu moom mooy sunu mooy su li nga xamante moom moom yitteel ci yàlla bi. est-ce que duñ taxawlu foofu tuuti ndax euh, ngir ñu mën a fàttaliku waat ki ngay wax ak daaj boobu bu fekkee am na loo ci jàpp lu tuut tuut ci daaj bi ñu nga mën ñu ko mosal comme émission bi émission Zikrullaah la te bëgg nañ lépp luñ ci wax rek euh, ñu di ci laal par tuut tuut ci sikar si bu euh, fekkee daaj boobu jekk nga ko nga mosal ñu ci tuuti. la ilaha illa allah mbokk yi ñu seetaan ndax xam naa ne tey moom bëgg nañ lool ci turu yàlla daaj bi macha allah sëñ sëñ Tamsir dañ damay gis daaj bi boo ko yëkkatee ba mu yàgg nga wàcce ko waat ko mu mel ne dafa am dafa am ay tolluwaay daaj bi euh, ndax loolu du nga ko royoon ci moom wala lool yow yaa ko après yaa koy yaa koy jéem a liggéeyal sa wala moom ci lépp nga ko royee ci daaj bi. waaw maanaam daaj bi. Mhm. ñun dañoo xàmme ko. Mhm. turu yàlla wi nekk ci ñun ñu bëgg ko di fekkoon nañ fi sëñ Fallou Wade moomu. mën na noo wax ni moo jiitu ci ñun. waaye it wax dëgg yàlla ku ci mel ni sëñ Papa Dia. Mbaaleen. moom it xam nañ ko bu baax ci turu yàlla bi daaj bii lay yor. ndax moom it toppoon na ci. Euh, suñu maam Baara Mbuub. waaye nag ki nga xam ni mooy doomam. du suñu jëwriñ ñun ñii. guddi yu ñu toll tembe. yàlla boole kook ñun. mu bokk ak ñun benn dëkk bokk ak ñun benn daayira di yëngu. ñinu andal sax ak njabootam a ngi ci bir muy seigne Malick Mbuub mom bi mu diké wax deug yalla fekk ñuy nam na bi ci sikar mhm. dan ko ne dan mhm. waaw top ko mhm. diko roy ndax mom daaj bi way moko don sikar bi fi waay bayiko manam ko maanaam mboolem ñi ko toppoon ñu yor daaj bi ko ci melni Baye Fallou Wade ci melni Papa ja ku ci mel ni Baye Malick Mboup mhm. ak ñeneen mhm. waaye nag ñoom ñëpp yàlla mhm. yàlla danoo boolee ñoom kenn ku ci nekkit am na lu nu jëlee ci yow loo xam ni wax dëgg yàlla bu nu bu nu neexee <laughs> danan danan danan danan dem ci dem ci sag sag sag wet ba gars yi nga xam ne ñoom xam nañu dinañ xam ne ñoo ngi ci ñoo ngi béréb sàngam. dinañ ci ñëw incha allah waaw yëpp dañ koo boole nag. <laughs> dinañ ci ñëw incha allah dañ koo boole. Euh, jamono boobu noonu lan moo la lan moo la neexoon ci ci daaj booba boobu daaj rek la amoon. wala amoon na yeneen daaj wala yow yaa ci jël bii rek di ko di ko roy. waaw maanaam sikar moom. Mhm. Euh, man damay faral di wax ni ñaari daaj la. Mhm. daaj yi des yëpp génn ci biir daaj yooyu. Mhm. muy daaj bi ñuy sikar muy Sam Ngom. muy Sam Ngom ak daajub Sam Fall bi nga xam ni. moom dañ koo askanale waa Sam Fall ak suñu Cheikh Fall Baye Góor ngir yaatal guñ ko yaatal. waaw te it daaj booba boo daaj booba boo xoolee moog bii mhm. xaw nañoo laale xaw nañoo laale waaw euh, daaj bii nag mhm. euh, yaatu gi mu yaatu tax na mu jur ay yeneen i daaj mhm. ndax boo xoolee boo dégloo si quartier di nga ci déggaale njenn ci biir njenne waaw waaw waaw waaw ci dégg njenne bu baax <laughs> danaa ci dégg mbay sele léeg-léeg waaw ci biir sikar si waaw <laughs> njenne la <laughs> waaw waaw benn la waaw waaw euh, di nga ci dégg it ncar maanaam li waral loolu mooy sunu maam baar nag moom moo ko doon yaata ndax wax nan ma ne ma daana sikaral si naar jenn moom moo yóbbu daaj bi ñu jëndee. bay baaru mbub bay moo yóbbu daaj bi ñu jëndee moo yóbbu daaj bi daaj bi njar. nañ taxaw tuuti ci baay baaru mbub moom ginnaaw bi nga royee jëwriñ jooju nga àndaloon ci sikar si ba ba kii ba bay baaru mbub boo ñu doon mën a wax tuuti ci moom ci moom di di moom moom ak turu yàlla wi. Eh, jamono yi nga koy fekkee yow bu fekkee fekkee nga ko fi ci jamonoom. lan nga gisoon ci mu di ko dundee woon mu doon ko dundee tur yàlla ak yan xeeti daaj la amoon. waaw suñ baara day moom fekkante nañ jamono. Mhm. waaye nag ñun xamuñu ko. xamu ko. waaw waaye nag ki nga xam ne moom moom la tàqaloon. Mhm. li nekk ci moom mu def ko nga xam ne soo ñun déglu nañu si karam dégg na nañu si karus baay baara. Mhm. waaye dégg nañu si karus baay baay baay maali te it bokk nañu sikkar ñoom ñaar Baye Baara di sikkar ba ci yàgg mu rocc jox Baye Malick mm-hmm. loolu dégg nañ ko waaye amul genn woote ba tey jii mm-hmm. maanaam euh, waxtaani Baye Baara yi nga daan dégg mm-hmm. ak lam daan sikkar nga di ko dégg soo ko déggee buñ buñ la laajee da nga naan Malick la waaw su fekkee ni maanaam xëy na euh, sonorisation bee fii xaw a changé ak waaye waaye boo ko déggee rek da nga naan moom la waaw amuñu genn wuute ñun Baye Malick moom nag moom lan jamonoon teel taqoo moom lool nag wax dëgg mhm. yàlla di ko bëgg mu di ñu bëgg mhm. di ñëw ci ñun ñu dem ci moom di sottante ay xalaat lu nu lu mhm. nu lu nu réer it maanaam ñu sañ ko koo laaj nag waaw lépp loo ko ko ñu sañ ko koo laaj bu ci amee xam-xam bu baaxee na ko moom nag moo ne moo ne moo lii ñu xam ci Baye Baara moom moo nu ko baaxee moom Baye Malick ndeysaan kon daal Baye Baara nekkoon na koo xam ne ku bëri woon ay daaj la eh, dañuy dañ damay dégg ngay daaj daaju aw ndax bay baara royon nga ko ci royon nga ko ci mom daaju daaju madda wala mom ben daaj rek la man moy daaju aw bi waaw manam bay baara daaj bi ñu doon sikar mhm. madda bi ñu ubbe bi bi ngeen ubbe bobu mom daat mom mom la daan madda ah. waaw boobu bobu la daan madda mhm. waaye manam ñu nu sikare it mhm. nonu la daan sikare ñu ñu ñu ñu ñu jël sikar la waaw bu ko jëlé teewul ah ñi ngi déglu ñeneen dégg gi dégg gi moma jaaxal ni nga déggé bay baara da nga daan déglu ay kasetam wala lool loolu lan la. waaw Baye Bara de déglu nanu ay kasetam. Mhm. waaye it ki nga xam ne mënuñu koo xàmmeek moom. Mhm. kooku moom danoo yàgg ci ginnaawam. Mhm. waaw ba sax nii ñu koy waxee ci bàyyi Fallou Wade. moom it noonu lañ koy waxee ci moom wax dëgg yàlla. dañuy fab teg na ci kanamam. topp ci suñu ginnaaw di aw ngir am cofeel bi ak it xam ni jekku nañu li muy def. te léegi léegi sax mu yebal nu bërëb sàngam mhm. ngir ngir ngir wóolu nu fa xam ne bu fa demee maanaam na mu koy defee foofu ak nan ko mhm. taamoo mhm. ñu nit bu demee foofa rek lañ koy kon tur yàlla ko tarbiya waaw tarbiya danga ko nan ngeen di dundee tur yàlla yi foofu ci ci ci ci dëkk ba dangaa boole tur yàlla wi ak liggéey bi léeg-léeg programme yi ñëw nga bàyyi liggéey bi dem ci dem ci tur yàlla waaw tur yàlla bi it ni koy dundee mooy képp ku ñu soxla rek ak foofu nu soxlaa ñu dem defal la ko waaw te it la ci teg dara nag. Mhm. ànd koog suñu góor yàlla yi. ak ñeneen ñi nga xam ne yaatu na. ndax euh, daaj bi moom day daaj boo xam ne foo ko si kër ci àdduna ñu lay aw waaw kay Europe. man gis naa caméraman bi di aw. waaw boo <laughs> <laughs> <laughs> am kuréel boo xam ne ñoom foofu lañ nekk ñoo xam ne saa yoo leen yittewoo rek da leen di mën a am ñu tënk sa ginnaaw mhm. ak maanaam ndax daaj yi ngay sikar ñoom da ngeen koy répété. wala da ngay ñëw rek yëkkati ko rek ñoom ñu aw la. waaw moom day xanaa xanaa yàgg gi yàgg gi ànd rek. Mm-hmm. waaye sax loo xam ne moom dañuy toog di ko répété. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaye daal maanaam daaj bi moom sax na fa sax boo xam ni. maanaam soxna ya sax mën nañ ko. ah moom sax na fa sax goo xam ne moom moom foo ko si kare moom ñu aw la fu ne gaay yi. ñii ma àndal. maanaam du lu ñuy répété waaye nag yàgg gi ci ñoom ñii nekk sama ginnaaw koo teg fii ma teg. dina ko defee nii ma koy defee. ndeysaan daaj bi dafa mel ni mën na ànd ak xiin wala. waaw ndax da ngay sikkar sikkaru xiin. waaw sikkaru xiin moom lañ ma gën a hmm. kon de tey xiin yi waroon nañoo dar <laughs> ah. moom lañ ma gën a xamee waaye nag. Hmm. Euh, sama sikkaru xiin moom génnul daaj bi hmm. waaw bu ma demee nag bay jeexal. su ma neexee ma teg ci eeru euh, Bass Niass. Mm, nga njàmbaas rek waaw ma njàmbaas waaw <laughs> ma eh, loolu am na solo loolu eh, jërëjëf mbokk yi eh, ba léegi ñu ngi ci émission Zikroullah dalal sëñ seen Gningue tey moom dama bëggoon sax ñu taxawlook ci bàyyi ci bàyyi baaram bu comme tudd nga ko. bëggoon ñu taxawlu fii mu nekk mu nekk émission bi. waaye nag xëy na yoon yemul ci benn. Mm-hmm. waaye bëgg naa tamit nga defal ma benn jàngat bu ndaw ci comme yow am na loo xam ne jot nga koo fekk ci mag ñi. si seen tur yàlla. ñun suñu jamono ji suñu tur yàlla euh, amul sax différence waaye lan ngay lan ngay waxaat ñi nga xam ne ñooy dund tur yi comme yow yow tey daaj bii nga nga yëkkati tey fekk mën nga ko yëkkati fu ne amul kooku mënut a yëkkati te loo ko booleel tamit turu yàlla yi moo ci gën a saf nee nañ turu yàlla kenn du ko fecc turu yàlla bu ndemee ba di ko fecc rek nekkatu turu yàlla te daaj bi yaakaar naa galan ba muy àndal yaakaar naa ne am fecc du ci amul yoon te nag wax nañ ne kuy buy booy tudd yàlla eh, wax nañ ci ci mag ñi borom téere yi wax nañ ko kuy tudd yàlla da war di def nii waaye nag du fecci loolu dafay nekk saaru joowu eh, joowu lay doon te galan galan bi ma dégg man ngay sikkaree nekkut galan bu ñuy tëb di ko fecc kon loolu tamit war nañ ko war nañ koo mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoo xam ne ñun caaxaanuñ dañuy tudd yàlla galan bi ñuy àndal muy tudd yàlla galan boobu lu fi yàgg la. nekkul lu ñëw ba tey di ko kii leneen lu ci nit mën a def nag xëy na sa mbirum bopp la waaye nañ ci génne maam Cheikh Ibra maam Cheikh moom dañ ko war a setal ci côté boobu. kon yow am na loo xamante ni dund nga ko ci turu yàlla yi di ko def eh, lan ngay ñaaxaat ñi nga xam ne ñooy dund turu yàlla dëgg la nag bi kenn ku nekk dina dem ci moom waxtaan ak yow. waye yow mi nga xamne amna lo jottu dund ci turu yalla wi nga xam da ju beure beure beure beure fan nga leni delo wat ñu dem fa mo xam da nga leni delo wat ci mag ñi wala waaw mom day euh wax deug yalla man jaxason na ma ak mag ñi safo nañ ma yit nak mhm. ndax ñii ma la tuddal mhm. kenn ku ci nek fo ma fekk di nga ma di nga ma di nga ma yëkkati wax dëgg mhm. yàlla nañ ma lool tayit lu gatt gatt di ma denk nak waaw bay fallu wat mi ma lay wax damay faral di wax ni fu daje danaan ma bul topp bëggu nit ñi toppal bëggu yàlla mi ngay tudd ndax mun noo faj sa soxla mhm. am na gis may may may tudd yàlla mhm. damaa jikki-jikki ma gis ko mu gàddu xiin jàkkaarloo man di ma bàttal waaw ma sikar ba pare bu ñëw jar bi mhm. waaw ni ma ni ma tey ni ma ba ma la déggee ngay sikar ba tey sonn nga fi coono boo xam ne ñii la wër mënu laa fay kon nag bul topp bëgg-bëggu nit ñi waaye suñu borom du ku nuy fowe mhm. yàlla du ku nuy fowe baatub laa ilaha illallah du ay caaxaan mhm. soo ko dee tudd daa war a am noo mel mhm. waaw te suñ baax mii dafa wax ni maanaam ñun dañuy dañuy jox suñu bopp sëriñ bi waaye koo jox sëriñ bi kenn du ko jox lu bon nan defar nan defar suñu jëmm yi bala ñu ko gën a bala ñu gën a jox suñ bopp sëñ bi daal dañoo dañoo am nañ mel ba pare nan nan ko defar ba mu baax ba sëñ bi ba mu mel na gën ñu soog koo jox sëñ bi tuddu kat yàlla yëpp loolu leen wax ndax turu yàlla bi comme ni nga waxee yaatu na ñun wax dëgg yàlla fu nekk ñu ngi fay dem ku nekk ñu ngi fu nekk ñu ngi fay daje mhm. waaye ñun de bokk nañ ci tuddu kat yàlla yi nga xam ne bu nu bu nu bu nu yëkkatee ñu dem ba ci ba ci ñaari Baye faal gay ñoo ngi ziare suñu asan bu bu baax mhm, ndeysaan suñu asan jàmbaar ñoo ngi koy ziare bu baax su ma su ma su ma fa demee su ma dégg naan ma soo yëkkatee rek sama xel day dem longaan ni ma ni ma daaj ji na nga góorgóorlu bu baax mhm. di ko yëkkati ci kër gi ndax yow rek lañ ko fiy dégg njabootu Cheikh Modou Fallou Fall Guet gën ñuy déglu wax dëgg yàlla ndax euh, sëñ Abdou Sappour mhm. wàllu ñoo ngi koy ziare bu baax mhm, ba ci gàmmu ren gii rek bi ñu génnee dañu ma dégg mën a bii moo ne ko Fall day daa xawoon a xat rek programme bee xat moo tax ñu bàyyi gars yi loolu day wane ne ñoo ngi lay teewlu mhm, ñoo ngi koy bu baax sëriñ Basirou Fall bu émita suñu xarit moom it noonu la ma koy waxee waaw ne ma boo boo yëkkatee suturu yàlla suturu yàlla bi sang yi dañ koy déglu Seydou Cheikh Moussa Fall moom ku ne xam na ne moom tuddal ko yàlla moom waaw moom tuddkatu yàlla moom bu wér lay lay lay déglu. Mhm. waaw te wax dëgg yàlla euh, ñaaxaat nañu ci tool. Mhm. tuddkatu yàlla bi. Mhm. waaw xamal ne ni ñu koy tuddee baax na. kooku moom lu mu wax noonu la. jërëjëf euh, sëñ sëñ euh, sëñ Tamsir ñu gis ne ab Baye Fall bu nekk dafa war a am lu muy sàmmanteel muy fexe ba li nga yëkkati ku la gis mën a xam ne kii lii lay yëkkati ndax nit li muy wane ñaare nañuy xool ba xam ndax. mel na noonu wala det tuddkatu katub yalla nu mu mel ya ngi nii gisoo ni nga ni nga sañsee gaay yi sañsee ñu silvisé sol set daf katub yalla bala ko tudd yalla nu mu mel waaw katub yalla de wala muy tudd yàlla mhm. war naa jàpp ba sell mhm. sol yére yu làpp mhm. xeeñ parfo socc ay bëñam ba mu weex soo taxaw di tudd yalla ndax yàlla moom dafa rafet te lu rafet la waaw yàlla noonu la war a mel mm-hmm. nag di ko tudd ci tuddin woo xam ni mm-hmm. euh, ku la dégg dina xam ne lii ngay def moom am nga ci fulla mm-hmm. waaw am nga ci fayda ca fóoyoo ko bañ a bañ a topp sa baat bu neex waaw waaw ndax euh, laa ilaha illallah moom saa ko wax saa soo ko waxee wax nga dëgg waaye nag la ca des mooy sa jëmm ji yow nga fexe ba dëggu yow yow mi koy wax li ngay wax dëgg la waaye yow na nga ci dëggu waaw waaw <laughs> euh, yi mag ñi fi nekkoon ñoom Baye Djibi Diouf ak euh, Baye Serigne Fall. ñooñu ndax doon nga dégg ci ñoom seen tudd yàlla ni daan tuddee yàlla. bu njëkk ndax am na loo ci jot a bàyyi xel wala. waaw ñooñu de ñoo ngi leen di dégg ndax. Mhm. xëy na bokkuñu woon nag ñoom ab gox. Mhm. waaye ñoo ngi leen di dégg bu baax ndax ay ay ay ay mag yi Baye Fall yeeg loolu xam ne moom leen fi def moom la ngi fi ni wét wétaaral mm-hmm. waaw Baye Serigne Fall moom lu nit gàtt gàtt ab ab dégg-dégg mm-hmm. moom dégg nga turu Baye Serigne faal tey bu fekkee ni yàlla ngi yëngu ci sikar moom mm-hmm. dégg nga daaju Baye Serigne Fall Baye Baye Baye Jibi Diouf it nax nu ka naka loolu waaw wax dëgg yàlla ñoom moom ñoo ngi leen di ñaanal di leen bége mm-hmm. waaw di leen bége baax xam ne nag yoon wi ñoom liggéey nañ ci mm-hmm. waaw mun na fee def lenn lu fi ñooña deful ci seen i tànk rek la ñuy yow di taas ci seen barke nag mm-hmm. waaw di leen ñaanal tey sàkku ñaan euh, lan moo la lan moo la neex ci nga ñëw rek euh, jël jël daaju daaju aw bi nga xam ne dafa mel ne jekku nga ko lool ndax dangaa da da ngaa bëggoon mag ñi mag ñi da nga leen a bëgg da nga leen a bëggoon ci ci ci roy leen loolu moo la ci dugg wala am na yeneen daaj yoo xamante nii tamit mi ngi yow. waaw waaw de am na moom <laughs> waaw daaj bi de yoru ko xam naa nag euh, xëy na moom la ñu gën a taamu ñun ci suñu turu yàlla. Mm-hmm. waaye nag lépp la ñuy si karte mm-hmm. waaw luy turu yàlla rek. ca ca ca teg ko ci dëgg. Mm-hmm. maanaam ñu baax ñu sopp ko bëgg ko. mu ngi fii. waaw bi nga royee mag ñooñu ba pare da ngaa mujj nag am sa daaj bopp <laughs> wala ci ci biir daaj bi ci nga keree sa daaj bopp. waaw. ci bi daaj bi ci nga kéré sa daaj sa daaj xam nga am daaj mom boko fawé diko sikar ba ba min ko ba yaggo ding ko ding ko ding ko min min go xamné nak bu la nexé man nga ko wëlbeuté nu nek nak do ay dëgg mom ku ko dëgg day xamné lool mom yaw la mhm, lool mom dëgg la <laughs> lool mom dëgg la dëgg la nan ngeen ni dundé programme yi euh, ci ci tour yalla yi da ngeen am ay daayira yo xamanteni da ngeen ni dem difa sikari wala suñ leen woyé rek ngeen ni dogo juk pour sikar waaw ko fa dem man na wax ni mbolem daayira bu fay yëm ca soxla turu yàlla mhm. yi ci ëpp dañ na cay woo mhm. ci daayira yi mhm. waaw bis yi nga xam ne dañ koy dañ ko dañ koy def nga xam ni bisi Seex Ibra lay doon moo xam surtout Seex Ibra bu fay defoon ngan wala leneen luñ ci mën a doon suñu jëmm ji dinañ ko nga yëgal mun dikkeet ñu def fa suñu kemtu laay bu kartan waaw moom daal amuñu ci lenn luñ ci luñ ci xaar ma yàlla waaw turu yàlla yi moom bëgg nañ ko bëgg boo goo xam ne moom képp kuñ koy def loo moom li li la sartoon yow mooy suñ dikkee daal nangu nu am ne ñun liñ fi indi yàlla la waaye du du ay caaxaan. dëgg la waaw loolu rek lañ ci soxla. dëgg la dëgg la euh, te it euh, da ngeen def sikaru Sam Fall wala yow sikar bi rek ngay def wala def sikaru Sam Fall di wër. waaw saam mhm. koy def. Mhm. waaw dinañuy saam waaye man moom. bu dee man si samay bopp ji man lan soxla daaj bi xam nañ ko man waaye teewul nag. Mhm. Euh, koy def ndax léeg-léeg ñu am jataay boo xam ni. Euh, maanaam saam lañ fay taamu su boobaa ñun ñëpp dañuy ànd ñu saam. Mhm, mhm. Euh, lan nga ñuy mosalaat tuuti ci tur yàlla wi ndax dama bëgg sikar si saf sàpp ci ci émission bi. Mm. waaw sikar waaw mu bëgg mu saf ci lool su ko defee ñu nga mosalaat ñu tuuti rek. Mhm. kon xanaa dañuy daal di barkeeloo eeru Baye Ablaye Ndiaye. Baye Ablaye Ndiaye waaw kay bisimilah. illa la fal la ilaha illa la fal ya kamal la ndeysaan Baye Ablaye Ndiaye yàlla ñu ko yàlla fayal daaj bi dafa daaju daaju daaju ndogo yi la mm-hmm. daaju daaju ndogo yi mel na ni ñi eh, Baye Fall miin nañ ko bu baax a baax a baax a baax da ngaa miinoon Baye Ablaye Ndiaye waaw Baye Ablaye topp nañ ci ginnaaw mbataay de. Ah. <laughs> waaw ah, kon kay waaw moo tax nga dégg nañu. <laughs> waaw boo boole na ay programme it mm-hmm. doon doon tout tànk ci jamono mm-hmm. ay programme yoo xam ne day tudd yàlla ñu tudd yàlla. mbaa mm-hmm. moom ñu tudd yàlla jox na ñu tudd yàlla. yàlla loolu waaw jot na daaj bi mel na daaj bu bu compliqué la bu naqaree bu naqaree lijjanti la ndax dafa am ay wàcce yéeg ndax maa ngi gis léegi. dafa mel ne cat bi ngay ngay ngay lool loolu lan la loolu noonu. waaw maam xam nga mbir moom bu la ñoree. Mhm. waaw nga topp ko. Mhm. Oh, di di ci def ay jàngat. Mhm. waaw ñun turu yàlla yi dañ ciy dañ ciy defi jàngat. dañuy dëgg bëgg daal. dëgg yàlla di ci def jàngat yoo xam ne maanaam fu ñu ko yëkkatee rek dara du ci des. waaw lool lool la xam naa moo tax am na ay wëlbati nag. Ah. léegi ñu jiyee dem fee <laughs> waaw. Eh, mu mel ne awukat awukat bi eh, ah, mooy sikarloo ki kii kii kii dëbbe. ndax euh, cat yi cat yi cat yi dafa mel na ci cat yi ci la sikkar si di di di di di neexee. waaw waaw loolu day am na ndax xam nga maanaam saa soo jugee fee rek. Hmm. Euh, dem feneen. Hmm. Euh, sikkar si day beesaat. Hmm. waaw soo nekkee fii ba mu yàgg. maanaam soo jugee soo jugee foofu nga dem feneen. maanaam sikkar si maanaam ñiy aw dañuy beesaat yow mi sikkar da ngay beesaat ñiy déglu sax dañuy beesaat. dama koy dégg ci yow da ngay tëggaat sikar si day mel da nga koy tëggaat boo daajee ba mu yàgg day mel ne da gën a yokkaat eh, mbir mi day mel ne xam nga xam nga kuy kuy def si kar ak kuy def kuréel ñaare eh, benn la rek ndax fi ne kuréel léeg ñu dem ba daaj bi sëgg ñu daajaat ko loolu dafa mel ne loolu loolu xam naa ne loolu nit ñi bàyyiwuñ ko xel waaye nee nañ sax mag ñi nee nañ bu njëkk ni ñuy kuréelee nii lañ doon si kare waye bu njëkk ñi ñi xam sikar nee nañ mag ñi bu daan sikar dañ daan tok ñi di wër bo xolé wa daaru sax dañ koy def ñeneen ak ñeneen dañ koy def ñu ñëw nak ci ci programme yi eh, programme yi ndax señ tamsir jot ko boo ko doon lo tay ndax nak li nga yor da ko koo ba man ko ci Cheikh la ndax tay ji sol bolo bax fim mu toll nii lii nii yow eh, sa ganjar moom nga am turu yàlla wi da nga ciy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima ku la nan la mën a def ba jot ci sëñ Tamsir ak fan la mën a jaar. waaw sëñ Tamsir day soxla da koy woo téléphone rek. Hmm. waaw soo ko woowee téléphone daal. Hmm. Euh, su dee loo xam ne mën na ca teew. Hmm. te du ci am benn benn jafe-jafe. dana ca teew. su fekkee ne loolu da cee nar a amit. Euh, dana la wax fa ngay jaar ba ba mu mën caa teew. su fekkee it maanaam programme la boo xam ne dangay bëgg maa am jox na ca cër boo xam ni. Mhm. Euh, day am noo noo dikkee. Mhm. su boobaa danañ la wax la cay war ndax euh, ñi ñuy àndal bu ñu ànd ak ñoom di di di mhm. dox. dëgg la dëgg la dëgg la ak ñoom dox te it nag euh, suñ sañoon saa suñ àndee ñoom. suñ fa jógee wala seen seen xol dina sedd sedd boo xam ni. wax dëgg yàlla su su ëllëgee suñ leen di woowee dana xam ne ñoo ngi dem kat bàyyi kër gannaaw waaye nag dana am buñ dikkee dana am lu ko lu ko mën a wóor. ñoo mm, ñoo ko ñoo ngi koy sàmmonte nag mm, bu dee bu dee jëmmi turu yàlla bi nag mm-hmm. moom kooku moom amuñu ci benn problème boobu mm-hmm. waaw bu dee bu mm-hmm. la yàlla dox dellu eh, sëñ Tamsir am na li ñuy wax euh, cassette wala enregistrement boo xam ne def na ko wala da koy waaj a def wala wala da koy bëgg a def euh, sëñ Tamsir euh, am nga son son boo xam ne def nga ko bokk taalibe yi di ko diglu wala da ngay sikkaat nii rek comme ci baas yi ci cant yi waaw maanaam dugg studio def son moom. Mhm. loolu moom defaguñ ko. Mhm. waaw maanaam nag nekk na ci xel mi nag. waaye bëgg nga ko. bëgg nañ ko wax la gars yi. waaw defaguñ ko waaye nag wax dëgg yàlla bu dee ci wàllu sikar moom macha allah. Mhm. waaw ndax mën na noo wax ni fenn nekk ci teewaan moom. tur yàlla yi moom wax dëgg yàlla yaatu na fa. waaw yaatu na fa gars yi. waaye bokk na jumtukaay yu bees yi léegi. Eh, génn son tamit da ci da ci da ci xam naa ne sëñ Tamsir mi ngi ci xolom. waaye nag lépp loo gisee par ndànk ndànk la loolu nag dafa am ñoo xam ne ñoom loolu rek moo leen ñor muy jàppale kuy tudd yàlla comme ni ñu koy defee ci ñeneen moo tax am ñoo xamante ni loolu rek mooy seen yitte seetaan ci li ngay yëngu la ci yow de li ngay yëngu nit ñi di ko bëggee loolu nga bëgg ko la ci jàppale waaw su boobaa <laughs> ku bëgg a jàppale rek ñëwal ndax wax dëgg yàlla jàppale sax mi ngi am ndax mhm. euh, mën na noo wax ne fi ñu jógee euh, xaw naa xëcc maanaam ñi ñu àndal. Mhm. mën na noo wax ni euh, seenu yoon. Mhm. Euh, luy jëm ci wàllu passé mhm. yooyu ci ñun la aju. te loolu ñun ñii suñu benn dërëm demu ci. murit yee ko jaayante. ndeysaan yàlla am na lu yéene ci lool. xam naa suñ ci sax di nga nu may xanaa di nga sax ñu sant ay jëriñ. waaw ba la neexee. <laughs> waaw dëgg yàlla waaye da teewul. Euh, ñoo ngi tàllal loxo jëpp. ndax it wax dëgg yàlla turu yàlla bi moom loolu moo waral yi suñ sañoon. ndax euh, bëgg nañ fee yàgg lool. Mhm, mhm. waaye nag xamuñu kañ la yàgg yàgg dañuy dem te mhm. suñu soñoon nag dina fi bàyyi loo xam ne soo léegi nag. nii ñuy tuddee Baye Jibi Diouf di tudd Baye Serigne Fall. incha allah ñu tuddee suñu maam ju baax ja Baye Baara Buub. suñu soñoon nag maanaam ñu ne dinañ fi bàyyi loo xam ne. incha allah mën a faat yàlla na yéex. <laughs> sëñ Tamsir kon xam naa ne comme waxtu waa ngi tàggoo. Euh, yan kàddu ngay tàggoog mbokk yi ñuy seetaan ak waa Tiwaawoon ndax xam naa am na loo leen bëgg a wax am na loo bëgg a dig soppe yi ndax sëñ Tamsir ñàkkut mu am ay groupe yu soppee wala mu am ay ñoo xam dañ koy topp di ko bàyyi xel ndax nit ku nekk fu mu nekk di fa yëngu ci lu baax mu xam ko ak mu ñàkk koo xam faaw am ñu koy bàyyi xel am ñoo xam dañ koy roy tamit ba ci daaj yi loolu lan ngay lan nga leen di dénkaat ak lan nga leen di dikk ci turu yàlla wi ak soppe yi nga xamante ni ñooñu ñooñu bàyyi xel. soppe yooyu nga wax moom wax dëgg yàlla loolu am na ñun moom li nu li nu yàlla defal jaarale ko ci sëriñ bi uh-huh. mooy fu nu fu ko rek yem ci sunu soppe waaw loolu moom am nañ ko moom. waaw ah, fu nu yim fi ñu ko yam ci sunu soppe mag ak ndaw nga leen di waxit ni du sunu jëmm ji waaye yàlla ngeen bëgg mhm. waaw turu yàlla wi ñu ñu saxoo mhm. di ko di ko tudd mhm. moom rek ngeen gis ci noonu moo tax ngeen bëgg nu waaw loolu moom kenn amul ak fayam waaw wax dëgg yàlla boole koog di yëkkati seen i xéewal din ko jox ñoo ngi siyaare bu baax sëriñ waagaan fay mu sëñ bàcc sëñ bàcc mas waaw sëñ waagaan fay ñoo ngi koy siyaare bu baax wax dëgg yàlla ba nu ban bi nu waxtaanee lii rek ba jàpp bis bi euh, danoo dem nuyu ji ko yëgal ko ko waaw mu jox na lu am solo loo xamante ne si maanaam moo defar jataay bi waaw lépp jàppandi boole kook sax amoon na yéene yi teewe si ko waaye ab ab liggéey ko tënk léegi rek ñoo ngi waxtaan ak moom waaw mu xamal ne nekk leen ci rek ca mu gën a yaatu boole kook ay ñaanam waaw di ci siyaare suñ Massamba Diouf suñu jëwriñ jële ja kër Babou moom it noonu la amee cofeel ci di ci siyaare Serigne Malick Mbuub waaw soxna Asukan duñ ko fàtte ci kër Babou Alima sunu soppee la waaw ñoo koy siyaare bu baax nag waaw di leen wax ni leen dee leen nu ñaanal rek waaw dee leen nu ñaanal waaw turu yàlla yu moom ñëpp ñoo ko bokk bëgg suñu borom rek lañ bëgg waaw dee leen nu ci ñaanal bu baax nag incha allah ñu ñu ñu ñu bañ ko tële ba mukk nag di ko mu sax dàkk rek ñu man ko ba faaw di ziar sëriñ sëriñ baaba jaay mii ci sama wet moom bàyyi faal la waaw di sama soppe nag di sama mag di sama lépp dëgg yàlla am yéene lool ne moom ci dëkk bi la nekk di yëngu mook sëriñ Saliou Seck mii waaw sëriñ Saliou mii moom moo nu jël si ci otoom waaw suñ baaba mii fi la nekk di yëngu waaye moom it daa bàyyi ab liggéeyam mm-hmm. ni ma loo nekk dinaa ci nekkandoog yow waaw te moom mi bokk nañ ñun toq ci tur yàlla ndax dañ ko dañ koo fekka ak moom waaw moom it euh, comme ni nga ko waxee bàyyi baara di baayam mm-hmm. euh, waaye nag wax dëgg yàlla mu am ci ak ak ak yaatal lool nag mm-hmm. waaw am oyof di topp ci sunu ginnaaw boole kook dinu bégee dinu ñaax saa su nekk waaw waaw ak ak ak sëti baay baara yi doomu baay baay baay maali mbuub yi waaw ñoo ngi ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax am mbégte lool wax dëgg yàlla di ñaanal nag Serigne Fallilou Faye ak Cheikh Moussa Fall Fallilou ñu yàgg fi lool yàggoo ta yàgg taxaw seen liggéeyu maam bi barke maam Cheikh Fall di ziare sunu bàyyi Naay Sarr ca Taïba Mbay di ko ñaanal moom it mu yàgg fi ndax moom moom ak suñu mudu aminte woon moom lan fa dese ci magum Baye Fall moo xam ni mm-hmm. maanaam yàgg ak suñ mudu Fall lool mm-hmm. ñu koy ñaanal nag mu yàgg ci suñ kanam di ziare Serigne Fallilou Gay sunu jëwriñ mm-hmm. waaw ñu duppee ko suñu mudu aminte Fall muy ab Baye Fall bu set wécc moom mi ngi fii amoon yéene teewa ko di ziare Serigne Moustapha Gaye ak Serigne Modou Gaye ak Serigne waaw ñëpp rek bàyyiwunu kenn waaw di ñaanal nag sunu bàyyi baaba jor sunu borom xare ko àjjana ci barke maam Cheikh Fall gise ko ak Cheikh Modou Fallilou Fall sunu wéyjur yi ñu fi deseet ñuy ñaan sunu borom yàggal leen fii ci seen ci sunu ci sunu kanam waaw di am mbégte lool nag wax dëgg yàlla di am mbégte lool. ñu ngi ñi ngi ngi sant nag ki nga xam ne nag moo waral. fii fii nga xamante ni ñoo fi lañ nekk di fi defee émission bi <laughs> si Cheikh mi nga xam ne Baye Fall moom moom ci liggéey bi la bokk moom sax moom moom ci liggéey bi la bokk moom deesu ko sant ci liggéey bu baax ak di santit nag suñu bàyyi suñu bàyyi ngañ mhm. waaw général mhm. waaw ndax wax dëgg yàlla bi nu xel jàppee daare ji mhm. euh, moom lañu la dégganteel ngir moom day suñu jëwriñ ca ca ca ca ca ca ca feenu nekk te it ko sëkk nag waaw moom la ñu dégganteel ngir mu uh, diggante ak sëñ Cheikh mi waaye wax dëgg yàlla sëñ Cheikh def ci ak ak ak ak ak laabire bu baax def ci ak yaatal ba lii lépp mën a nekk moom ñoo ngi koy siyaare bu baax waaw di ko di ko ñaanal nag waaw moom moom moom ngërëmul Sëriñ Fallou Fall am na ko ba pare waaye mu dolli ko rek ci barke maam Cheikh Fall moom mboolem mboolem Baye Fall yi mu fi nekkal nag ak ñoom sëñ Ilimane Dieng ak ñëpp rek. xam naa daaj boo xam ne rek dinañ ko mën a uh, kii jotaay bi tàggatoo ak mbokki taali bi ñuy doon seetaan xam naa nag gars yi waaye nag comme lu du doy moom loo ci am mu doy waaw dañuy wax naan eh, eh, teen bu du dey ak nag yu duñ màndi wëggkat bi bu sonnee na bàyyi waaw <laughs> sëñ bi du jeex te ñu ne duñ daanaka duñ màndi waaw <laughs> kon dañuy dañuy dañuy laal fii rek bu ëllëgee ñu laalaat ñu laalaat leneen rek waaw waaw xam naa daaj boo xam ne da ko mën a tëjee jotaay bi su ko defee ñu mën a ñaanal mbokki taalib bi incha allah waaw maanaam sëñ Modou Guèye mii Euh, moom it mënuñu koo ñàkk siyaara ndax daa jóge dëkk ak dëkk lépp mhm. lépp ca nag ca ca dëkk ba la rek mhm. waaye daa jóge dëkk ak dëkk nag tey tuddkatub yàlla bu mag la waaw xam naa moom danañ bu ñu jógee fii danañ ci waxtaan moom tuddkatub yàlla bu mag la moom tamit di jëwriñ di siyaare bu baax suñu bàyyi bàcc gay mhm. ca Touba Mbayeen ak suñu bàyyi Moussa Gay ñoom waa waa kër gii la ñu la la la la la la la la la la không dám như la la la la la la hai la la la la la la la ilaha illallah jërëjëf euh, jërëjëf mbokk yi ñi doon topp ci réew mi ak ci bitim réew am nañ mbégte lool ak contentement ci tey dalaloon suñu mbokkum taalibe sëñ seen Njing yaakaar naa ne mbokk yi seen xol sedd na lool ndax sikar si am na solo lool te it macha allah neex na di la ñaanal bu baax suñu borom gën laa kàttanal yokk la ci barkeb turu yàlla yi li nga yéene ci yoonu kër maam si Ibrahima Fall yi yàlla na nga ko mottali ànd ko mbooleem taalibe yi ñi nga àndal ak mbooleem dëkk ba dëkk ba suñu borom def fa xéwal Euh, seenu liggéey suñ borom jàppandal lépp barke maam Cheikh barke turu yàlla wi ñi ngi sant bu baax te di la gërëm nag ci taxawaay bi ak oyof gi ak jàppandi gi bis bu nekk ngay woote téléphone ñuy waxtaan ci sëriñ bi loolu lépp nag wax dëgg yàlla ak sag mbaax rek moo ko waral waaye nag euh, du ne du ne déet ndax fi nga bokk la ndax yaa ngi nii sol mbooloo baax <laughs> ñu siyaar baax suñ suñ seex mbub mi nga xam ne euh, ndeysaan biñ ñëwee moo nekk ci li lal basang yi lu nekk mu di ko def ba jotaay bi tey yem mm-hmm. jërëjëf kon mbokk ñu seetaan lii mooy seen émission Zikroullah ngeen di ko am seen seen jës bu murit euh, jeudi bu jot incha allah tey ñu dalaloon suñ bokkum taaliba suñ Tamsir Gningue kon ñu dem ak ñu Tuubaa bàyyi leen ak suñ Tuubaa li stajib daawati bi ma faaxa san nii bi ma faaxa rabbi ku la suñu barke mu am si faaya fa allah la ilaha 啦。